année précédente yi ñu avec nos manières mais cette année ci avons fait des choses, mais nous avons beaucoup des ñi nga pour euh, nous artistes des jeunes parce que nous à chaque fois des sans la culture mais nous avons un problème problème problème autorité cette année ci nous voulons fête. Euh, place civique Mansour Mansour fa lañ ko bëggoon a defee mais la dafa def ni on avait prévu de faire euh, journée vie pour la fête def journée def rencontre le matin on a fait def caravane fait defee caravane pour faire ñu concert mais depuis lors le mois de juin nous avons commencé à Nous des ngi à tenir des réunion bind ay lettres envoyé que nos autorités à savoir le maire à savoir le président du conseil départemental mais malheureusement malheureusement depuis le mois où je vous parle parce qu'il nous reste moins d'une heure de temps pour débuter la fête amul benn réponse bu jóge ci ñoom ñëw ci euh, DA direction des arts a une enveloppe de 250 000 bi nga xam ne ñun dañ ko waroon ak war appuyé parce que dans les 14 régions du Sénégal ak commune, du Sénégal yépp mairie yi wala conseils départementaux yi ñoom en charge de la fête de la musique ce qui moo mënoon rataxal entre les artistes et les autorités mais malheureusement à Louga nous savons que nos autorités ils ne respectent pas les artistes ils ne respectent pas ceux qui font la musique malheureusement alors que nous sommes là, nous dañuy am ñun là, malheureusement c'est ce qui existe on nous dit ay année nous sommes là, dañu culture amatul les autorités à savoir les municipalités à savoir les présidents le président du conseil départemental parce que tay même subvention yi nga artistes sax dañ ko chaque année

quoi qu'on puisse dire ñoo ñoo fi nek ñi nga xamni ñom ñoy ñooy li nga xamni mom moy la culture lugatoise les artistes moo taxoon tay ñu ni dañuy réunir euh, def li nga xamni mom moy mooy point de presse wax li nga xamni mom moy ñi nga xamni ñom ñoy autorité nek ci kaw le ministre de la culture ak aussi tamit le président Macky Sall parce que le ministre de la culture le centre culturel régional à bu Louga soxla nan li nga xamni mom moy logistique fi nga xamni mom moy centre culturel bu Louga dafa soxla logistique quand on parle de logistique dañuy wax la sonorisation les lumières et ainsi de suite mais malheureusement amuñu ko tey suñu bëggee artistes yi dañuy dem que ji avons tey xam na ni réunir na réunir luñu ñu ñu war les autorités defuñu ko 250 millions, non. noonu dem police danoo dem demander li nga xamni mom moy en face mairie pour def suñu concert tay, ñu dem police pour def enquête de moralité la police nous a dit de de payer 25 000 francs Fa lañ ko tek? Ba dëkk lañ nekk bo xamni enquête de moralité on te demande on te demande yow lan nga wara def tu payes 25 000. et après ils vont te dire que pour la sécurité policier bu nekk dañ ko jox 3000 xaw ma 3500 état mi ngi fayee ko état looloo fi xew fi looloo xew Louga nos autorités appelé wuñu artistes yi Ils wuñu beaucoup bëgguñu art su deewee Louga ñoom ñoo ko rey mais avec le peu de moyens qu'on a eu on a essayé de faire la fête parce que avec ou sans nous nous faisons la fête c'était juste ça hein. ok